ci ay baat yu gàtt ci wolof ndax mag ñi yàgg nañ fi ma leen di nuyu yéen ñëpp tey nag ndaje la ak responsable yi nga xam ni ñoom ñoo nekk à la base ñoom ñoo yor les collectivités ma leen di jéggalu waroon naa ku nekk ci yéen ma woo ko waxtaan ak moom toog ak moom seeti ko balaa muy ñëw fii loolu moo gënoon a jaadu mais invitation ci ay réseaux sociaux wala kenn wala ñaari nit woo la ci ay maire ci ay responsable bu ñu defee ay kilomètres ñëw ba fii cofeel la bu ñu defee bu ñu defee loolu yëpp ñëw ba fii yaakaar la boo xam ne dañ ko war a bokk du lu ma moom su ma teeloon a ñëw mais yi ñoom ñooy toogee boor bi ñun ñi ko sookee ñu toogee boor bee ndax seen jataay la seen mbir la te bëgguma ngeen am impression que dañoo defar lépp ba mu pare ñu woo leen ne leen kaa leen gunge neewoon naa leen le 9 septembre il faut que ñu inventer une nouvelle manière de faire ci lay ñëwaat je vous le de manière solennelle te engagement la bu ma jël dina yëkkatee ndoo tegandoo Sénégal ñépp la soxla maa yéen démb tey ak suba ndax man maa leen yoreel man maa leen yoreel xëy na ñu bari fii su ma dajeek ñoom mën naa bañ a jaar seen tur mën naa leen gis sax ndax a xel mu naqari wala soxla yu bari ma bañ laa xàmme bañ laa nuyu nuyu bu ci war et vous avez parcouru des dizaines de kilomètres des centaines de kilomètres ñi ci yéen pour ñëw fii baal leen ma àq waaye lii nga xam ni lii nga xam ni lii nga xam ni lii nga xam ni lii nga xam ni dañ ko bokk lii nga xam ni dañ ko bokk ni ngeen doxale won ngeen ma ni seen mbir la won ngeen ma ni yéen a koy téyal seen bopp maa ngi leen di